waa Amadou Ba damaa gis mu nekk ci fu lëndëm ndax damaa gis mu ànd ak Macky di dox mbooloo mu bari topp seen ginnaaw ñi ngi sol ay t-shirt yoo xamante ne dañ ko cee def def ci Macky Sall Macky jiitu mu topp ci ginnaaw waaye mbooloo ma topp ci ginnaawam daanaka dañ ko jox ay goro benn tànk maanaam bu ñu toppee di yuuxu moon Macky Sall ginnaaw ñu naan Amadou Amadou dañuy déyate seen biir ak di ko mokki ak di ko ñaawal waaye saa bu leen gestuwee ñu ne Amadou Am moo tax ma xam ni xaaj bi ko jox bopp dañ koo nar a wor dañ koo nar a nox gëmuñu ko bu doon teen ma ni la niñ koy walloo tànk lañ ko jox joxuñu ko loxo dañ koo jox tànk jafandu ci bant ngir bu gisul lu nu xam ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala wane ginnaaw moo tax xaaj bi ko woon ginnaaw naan Amadou dañ koy war dañu koy jëy te élection yi ñu gis moom Amadou Ba diggante troisième dem quatrième deuxième bi sax seenu ko ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala bu ñu sàgganee dana am mbetteel ndax ñi ko booleel Macky booleek ñoom dañ koo nara a wor dañu koy jëy gëmuñu ko ci kàttanu yàlla ndax partie bi gën a gàtt fan coalition bi gën a gàtt fan fu ne saam jaar fa mu mel ni saamu géej ci partie APR laa ko gis ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala loolu it bu amee damaa gis kujje gii ni nu bëgg a tasaaroo kenn laa gis ni Sonko bu ko joxoñ ña ginnaaw El woon nañ ma lu leer ci moom muy Déthié Fall Déthié xool naa ay mbiram gis muy gortu weex tàll gis muy ku baax gis kuy sunu kuy sunu borom nara a ci nguur kooku gis naa ni biddiwu nguur wala giddiwu njiit xaw ma premier ministre xaw ma lu mu doon waaye gis naa ko ci moom nit la ku set ku sell kooku Sonko bu àndeek moom muy ki ngay wax alaaji Déthié Fall sunu borom mën na koo defal tawféex te dina bette nag dina bette ndax élection yi dama ko gis ci ñett ñoo xamante ni ñoo koy buuxante jëm ñent muy ki nga xamante ni moom la ñuy wax Karim Wade ki nga xamante ni moom la ñuy wax El Malick ki nga xamante ni moom la ñuy wax Bougane Déthié Fall ñëw njënteel leen waaye biñ koy xaar ñett ñi dafa mel ni bu doon kursu danoo jiitu bi nu jiitee mu mel ni li ñuy wax outsider Déthié Fall daa jékki-jékki ni sarax seen kanam bokk ci ñu war a jëlpee moo tax ma xamante ni moom bu dee ay mbokkam ñi ngi may dégg na sàkku ay ñaan na gën a ñaanlu ndax ku jéggi nii ñu war a tasaaroo nañu ko gàttal ut ay candidat yu néew loolu laa gis ci ñoom waaye candidati candidature Amadou Ba ay woor laa ci gis ay tappale te buñ fi yeggee ba le 26 février jëm le 27 loxo dana dar gémmiñ moom Amadou Ba dana xam ne xaaj bi ko jàppoon ñépp gëmuñu ko dañ koy nax gisuma ko deuxième diggante troisième jëm quatrième laa gis jëmmam ji ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala seex bi kon su ma la déggee mooy nguurug waa Benno Bokk Yaakaar ak APR ak Macky Sall ñi koy jàppaleeg ñi ànd ak moom yépp jeex na ci atum 2024 waaw nguur gu jeex tàkk la waaye damaa gis genn rëng-rëng goo xamante ne xaw na maa jaaxal may laajte rëng-rëng gi fan la ndax élection yi ma gis xaw ma ñañ ko seqal ñoo naan sàcc xaw ma ña ko organiser ñoo bëgg a sàcc ndax diggante talaata dañ war a joxe résultat jëm alxames ja gis naa ci rëng-rëng joo xamante ni bu ñu moytuwut ah dëkk bi dina day war ndax dama cee gis dëkk bi fépp yi boy mbooloo mi génn ñuy wax ay waxi sàcc élection dama ni ku bu ñu taxawul ñaanlu lii may gis ci élection yi ñu di ko ruumandaat bu doonu toogaayu toog toog toogaataatu maanaam mooy nguurug Macky gu jeex tàkk surprise boo xamante ni benn président bu kenn dul foog moo nar a taxaw jiite réew mi waaye nguurug mag gisatuma ni taxawati na ci àdduna li leen dese mooy weer yi ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala euh, ndax euh, bari na ñoo xamante ne nii jamono ji euh, seen feebar li leen gën a sonal bokk na ci siti hémorroïde waaw ñaar yooyu bokk na ci loo xamante ni mu ngi lëmbe réew mi mm-hmm. ñu baree baree bari jàngoro la joo xam ne jàpp na leen tere leen mm-hmm. liggéey toogaay bu yàgg duñu ko mën mm-hmm. ba yu ci bëri daal concentration sax pour mën a wéyal seen liggéey ci nam ware ay ay ay problème la ñu ñu bëggoon xam rek loolu lan moo ciy pexe ak euh, solution bi ndeysaan jërëjëf ku baax mu mel ni siti ni ko mag ñuy waxee rek mooy toppum siti ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala siti di feebar boo xamante ni feebaru deret la feebar boo xamante ni dañ koy donn muy feebar boo xamante ni néew na ñu muy ñu ku mu dalu ñii dañ naan la mënumaa lekk jën daf may xasan ñii ni sama yaram bi ñii mu leen di wokkatuloo ñii mu leen di def karaw guy ruus ñi bët yu xonk ñi bët yu ñuul ñi ñuul ñi seen diggante baaraam yi di xar muy mbir moo xamante ni doy na war siti di mbir moo xamante ni feebaru deret la feebaru siti la muy jàpp nit di ko def noo xamante ni jéggi na dayo siti dana jàpp jigéen di lakk màndiwum ba sëy boo seeg moom mu tàngal ko sànni ko fële ba du am doom siti dana jàpp góor mu ñàkk am doom ñu naan dafa yoom ñu naan dafa tële ñu naan jigéen nga dafa jaasit fekk siti kase la siti feebar la boo xamante ni boo ko fajul dana dox sa deret di la def yaram buy xasan képp koo xamante ni siti jàpp na la di manifesté wu sa yaram ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala siiñ yii boo sangoo sa yaram wi fet feti boo toogee di wokkatu am na ñoo xamante ni siti da leen di jàpp di def seen yaram yi ay seen seen yaram yi ay ër di def seen yaram yi ay xam am na ñoo xamante ni seen mbogo mbogo tànk yi diggante seen aw yi lañuy jàpp di wét di ko wokk am na ñoo xamante ni dinañ dem ba paaka wala lañ set dañ koy jël di xoos seen yaram bi te bu ñu bàyyee di muy mel ni loolu daa dàq sax ñàkk bàyyi gi siti képp koo xamante ni dal na la nga toog ndax bari na ñoo xam seen ñàkk am doom góor wala jigéen sitoo koy def képp koo xamante ni titi jàpp na la daal boo seetee Cheikh Moussa Fall ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala mu dimbali la képp koo xamante ni hémorroïde ndax hémorroïde kenn ku ne xam ne ni na ñuy toog wàllu téer yi wàllu bureaucrate yi wàllu commerçant yi muy hémorroïde di feebar boo xamante ni feebaru ngelaw la feebar boo xamante ni bu la dalee da ngay yëg biir bi bëla ne ngay seere di nit koo xamante ni mën ngaa xëy toog ay fan doo lekk sa biir bi feet dell ba mel ni danga ngaa léegi wala da ngaa léegi muy mbir moo xamante ni bu la dalee ci kàttanu yàlla tabaaraka da ngay toog di dégg sa bopp ngelawal boo xamante ni du xeeñ nit ñi waaye foo toll di ngelawal loolu li nga xamante ni maanaam mooy hémorroïde moo koy def léeg-léeg mu dal la hémorroïde bi nëbboogul interne ak externe bu demee di topp foofu commencé def benn picc ci fi ngay demee wanag nga di ko séen nga jékki picc biy màgg picc boobu mooy dem ba saa booy demee duus day génn mel ni li nga xamante ni maanaam mooy bu fas ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala beneen bi muy nit koo xamante ni hémorroïde ngi la jàpp di tayal te yaram ndax bu jàppee nit dina tayal yaramam ba nga xamante ni ci kàttanu yàlla tabaaraka wa yaram bi day diis fu mu toll yi nelaw di tayel bu tëddee bala mooy yeewu mel ni dañ ko dóor ay yet hémorroïde daal képp koo xamante ni yaa ngi koy sentir mu lay seereloo bala ngaa dem boo demee douche ba pare génne deret deret jooju bu yàggee dana dem ba sonal la te dina la néew doole ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala murid daal képp kum dal boo teetee Cheikh Moustapha Fall borom jëni jëni borom ku bëgg ni kun ku bañ ni kun ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala incha allahu sunu borom dana def loolu dañ taqalikoog yow incha allahu rabbi ñun ñooy Cheikh Moustapha Fall borom joni joni ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala